GM Info TV. te bu dul rëdd bu baax Oustaz Mbour kooku lu ñu xanaa lu waay soxla soxla war naa yéene si nga si bu baax xanaa lu waay bon bon bon bon war naa yéene gàmmaal bi toll nii si bu baax koo xam ne waxul ne damaa ñu wax daal waxul ne saa bopp daal yéen si maa ngi te nag yëpp nit yëngu yëngu même bu la déggee benn plan de formation rek nga ko def amul benn mbir boo xam ne tax na mu jóg tax na mu bëgg loolu jëm ci àll yi salaatu salaam. jërëjëf jërëjëf. lan lañ ko mën a jënd ko boppam. ba egg ci wax ne sama sama dam yi fidaa'un li xuruuji dammi wa maradi fidaa'un li daa'i jasadi. dara jël su leen waroon a tuuru na sama kër. sallallahu alayhi wa sallam. bu waree wax naa ko waxal na. Hmm. wax nga ko léegi xalaat ko sax sànni naa mais il nga dund lahu shukran li futuwaat idrat mi riwaay parce que xiba yu ko ubati bu ko gam-gam rek boo ko sig sakaani moo tam gaa keneen nag xawaay yi yàq yi dem dinaa wutu ala kay xaal yi maa damaa la tudal baax baax boo xamul foom benn xam baax doy na dem liggéey jëli si waat nit ñi foom ndox laay foofu nit maa yomba am na ko gis boo xam ne nee na te lii du tubaab yi lal yéen te kaw lal yéen la doon jullee ndax kóor buñ ko sobe ko comme nee na am na bi soog dañ ko dugal ci magasin boole tubaab bi boo dellu jigéen ne ñay naan du naan ñay toog di mu mun ñu ne ko waaw ndax métti na la mu ne ah déedéet kenn ku ne ci mu kàllaf la ñaari malaaka yi say mag li may loroon loroon malaaka yi ginnaaw malaaka yi ak ñu ñàkk bi xool fa mu yéegal ak mu ñëm confinement yow ma la boo ko yàgg mais xel mi xalam ne yàgg naa ko juróomeel daa bari